ñom ñaar ñëpp kenn du ci sama mbër quoi mais gëm na ni làmb ju neex la làmb ju ju ju doy war dal la si ñom ñaar ñëpp mën nañ béré modlo Lo mën na béré Gris Bordeaux tamit mën na béré mën na xex mais làmb ji en tout cas dal bo moytul mom kaw peut-être mën na ci am. combat bu nax neex la mais combat bu nax compliqué la aussi parce que dafa doon ñaari mbër ba ki modlo Lo toog na lu yàgg bërewul te Gris Bordeaux mu ngi jógee ci défaite bu metti du coup aussi xam nga Modou Lo dafa wax euh, yëkkati boppam dem ci canam. donc du coup aussi il euh, doit bosser quoi. ne 50 50 là. Modou la laa faral mais mënu ma ko jox favori 100 quoi Gris Bordeaux Amna na doole te bu comme li pa bi wax barki dem buy bëree mo xam mënoo xam lan lay indi mënoo xam bëri lay indi mënoo xam xex lay indi mais nak ma dama gëm sama bop quoi Dama gëm ki ma àndal dama gëm ne bu Gris Bordeaux indee xeex mën nañ ko cee nax daan ko bu indee bëreet mën nañ ko cee nax daan ko. boo ci gis moy d'abord Gris la jox ndam mais ci gis-gis je pense que ils vont tous les deux vers des chances égales ku nekk mën na daan moromam mais je pense que Gris Bordeaux moo xaw am faveur des pronostics tout simplement parce que moo ko ëpp man dem Modou la faral mom mais bu naa topp a gër ci bi moom day ñak mom Massan moom bu rek quoi moo gën. mais man nag lu Modou Lo laa faral nag man waaw ku nekk am nga ku la fu la neex féete man nag moom moom laa faral. lu bëri lo xam fan de lutte ñoo ngi koy xaar parce que nekk na ñaari lutteurs yoo xam ne nañ euh, quelques points forts ak benn ay quelques points faibles. bosser mais aussi surtout la non violence.